do xet julli ta waxtan wi fatali ko yalla rek nga jël bugon bu fekke nak dem nga ba ag ci ni nga xamne ni la yalla wax ne nañ ko ko ko yonent bi def ko ñu nekk ci lolu ku xam yalla mënu ko xet ku jaar yoni yi Cheikh ibrahim mënu ko xet kon faydu bi nit ñi parel nañ ko xadul nañ ko mom tim parel nako don ko waxe bayam don ko ñaan yàlla tax taxqiq ko ba ci ziyaareem Faas nga xam ne boobu Baye 11 ans la am maam alaaji dem na ba gis Baye mu ngi taxaw gis ko ci xabru Cheikh Ahmed Tidiane mu ngi taxaw mu xam ne ñaanam ngi nangu na te nangu na ci kii kon ñoom ñu ngi ko doon xadul daf ko doon waxee am na ku ma wax keroog mu ne dafa am. dégg na benn borom xam-xam wax ne Baye Mahdawiya la oote woon gannaaw gi la door a xam ne borom faydu la mu door a oote faydu bi ah ba pare mu ne wax na ne mu ngi ci bind yi weddiwuma ko waaye bind yi ñuul nii diwaani yi lu néew ci Mahdiyu Mahdawiya yëpp ci diwaani baay bi mu ngi ci benn yoon. diwaan dewaa wi si tëkk mokkal beneen rek wax ko xel day fàtte te na ko wax léegi bala ñoo dem dama lay gërëm waaye danga fekk bàyyi ci diwaani si muy wax tudd mahdawiya dafay wax ne yusalli bihi lmahdiyu yaa fawza ummatin ya ummuhumu taaha wa isa wa aluhu وهنا ورجي لقل مهدي عونا ومرشدا له كل وقت من رضاي مجاله باي تدنا مهدي فو واي واخدنا واخدنا دفا بغي نيك مهدي دفا واخ غناو بوم ملالي خيت يونس خيت بيغا خامني مهدي دنا نيو نيك اليمان سي خيت بي mune mangi maa texe xet wo xamne ne yonent bi dana len jité isa jité len mahdi nga xamne ci al bayt la bokku jité len mu tek ci nak urajji li qaw li qal mahdi auna wa murshidan lahu kull waqtin min ridaya majalu mangi yakar dajek mahdi yu waxut mangi yakar do mahdi yu mën naa am biñ doon wax du boobu waaye boobu moom firiwul loolu bii moom li muy firi mooy maa ngi yaakaar dajeeg mahdi yu pour lan waxut pour dajeeg moom nekk taalibeem de pour nekk ndimbali mahdi yu bu doon nekk ndimbalam rek sax nga jàpp ne dafay nekk jund ci junudam ndax mahdi yu euh, boobaa dana xeex baatil nga jàpp ne kon ci jundam waaye wa murshidan la ci teg maa ngi yaakaar a dajeeg mahdi yu pour nekk ndimbalam ak nekk jubalkatam nga xam ne mahdi yu moom waxtu wu nekk li ma gërëm rek ci lay dox maanaam su may awaamir lay toog kon kooku lim oote ëpp na mahdaw yëtu te Cheikh Ahmed Tidiane waxoon na ne mahdi yu bu ñëwee dana ñaan sama taalibe yi fatiha ñaan fatiha mën naa firi ñaan wirdo mën naa firi sàkku ci ñoom ñaan gis naa bayti baay yeneen yoo xam ne ku neexut xel comme man bu koy jàng yàkkamti mën na koo firee mahdawiya waaye lam ko jeexalee moo lay xamal li muy wax fa wax ne wa arfau ilman lil jahalati waadian وأكسروا رايات الصليب وأدفنوا وبي يرفع الجور العظيم فإنه بف... يرفع الجور العظيم فلا يرى سوى العلم والدين الحنيف يزين فتمسي رجال الله في ظل راحة وعز وتمكين وبالحق أعلنوا يكون زمام العالمين جميعهم بأيدي رجال بالعلوم تمكنوا فياتي مسيح والرجال رجاله بدين الامام الهاشمي تدين هنالك عم الفيض لا شك لن ترى سوى عارفي بالله وشرع متقن بيتي يوي بو خولي اسمع بي دا فاي دا فاي نيروك وخي مهدي وخامني باي واخ نان خيخ ليسلم جل الناس اقتلوا بعدها شي نفس من والبي شي نفس قصيده بي شي لاي وخي لولو قصيده بي من كوماسي نوحد مولانا باحمد نؤمن وبالرسل والاملاك وهو المهيمن وإن شاء قواني لحمل خلافة li kay arfaa tawxida wal kullu muslim mumin mutqinu wala mumin bu ko neexee mu may ma ma enu xilaafa pour ma yëkkati raayatu tawxid ñépp nekk ñu gëm yàlla mu dem ba ci biir mu ne ma yëkkati drapeau yi xam-xam suul réer yëkkati drapeau yi xam-xam suul réer loolu nag lu jar a bàyyi xel fekkee sa sëriñ drapeau yi xam-xam la yëkkati suul réer war ngaa góorgóorlu ba xam satise yi nga xam ne tim ñoo amee darse yi am nañ liggéey bu gën a mag ñoom Oustaz Moustapha ñu ngi fi wa arfau ilman lil jahalati waadian yëkkati xam-xam suufeel réer wa uksiru raayaati salibi wa adfunu damm drapeau yi croix suul ko xam nga lii yëpp dafa góor yàlla yëpp mujj ci jàmm nag ak teraanga ak jàppandal ak feeñal dëgg nëbbatuñ dëgg gi noste àddina bi nekk ci loxoy ay góor yoo xam ne dañoo am xam-xam maîtriser xam-xam kon bàyyi ñi xamal ne noska àddina bi ci ñi mujj ñoo xam ne ay góor yu maîtriser xam-xam moo tax il faut war góor góorgóorlaat ci njàng ak njàngale parce que mag ñi yi baax yi fi nekk mooy seen résultat ñi fi nekk tay nag seen résultat ñoom ëlëk moo ñu koy wax buñ lo ba nit ñi xam lool moy seen résultat buñ lo ba nit ñi gëmuñ lu may adina ta adina amul tim lool moy seen résultat xale yi yaruñ seen bop xale yi jàngaluñ seen bop xale yi xamaluñ seen bop xale yi xamaluñ yàlla seen bop ñi leen di yar ño leen di def niñ mel muy continuer ci xassida bi masiix ñëw ak ay góoram ñom ñëpp ñi nekk ci diina yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallam fofu la faydu bi matee hunaalika amal faydu kon lii ñëw nii yëpp tàllalu gi yëpp ba fii ba masiix di feeñee rek faydu baa ngi liggéey kon bu kenn wax ne faydu saani wala saalis wala saab rabe wala ëpp na ko dafa tàllalu rek di dem ku jàpp nag ne dafa am ku laaj keroog ne ma dafa am ku ko wax ne ko imaamul Xumayni dafa am moom it dafa am faydu ma ne ko mën naa am mayam ndax may dafa bëri kulla numiddu haulaay wa haulaay min ataa rabbika wa maa kaana ataa rabbika am na mën naa oote mayam ma ne ko xaraka mi Seydou Ali bindal na ko leetar wax ne zaadahu llahu faydan dahran yàlla na ko yàlla dolli faydu ci jamono yëpp ndax dafa tegtale na xaraka moo am faydu baay bi fekkee yaay ku koy beesal wax ñi ñu beeslu léegi may la may la may la may yi dafa yaatu dafa bëri ma ne leen am na waaju fi génnee léegi ma ne am na waaju fi génnee léegi ñu ne waaju dox la li waaju wax nag jëmalewuma ko ci faydu xaraka bi dama koo jëmale rek ci yu niroo te bokkuñ waa ji dafa ñëw ma jox ko xaalis mu ne ah sëriñ ak këriñ ak fëriñ ñoo bokk sant waaye bokkuñ may leen waa ji tontu nañu faydu yi bëri nañ waaye bokkuñ mu ne sëriñ ak këriñ ak fëriñ ñoo bokk sant waaye duñ ba may leen kii dañoo wax ne dox la waaye yàlla ko ebaloon pour mu jàngal ñu rek kon dafay tàllal di dem bàyyi waxaat feneen wa bi yurfaau ljawru alazimu fa innahu bi di yanaalu diinu rafa liwaayi tooñ gu tooñ gu mag gi ci man lañ ko yëkkatee tooñ gu mag gi nag mooy bokkaale yàlla tooñ yépp bokkaale yàlla ci gën a mag moo tax yàlla dana baale lépp ba mu des loolu